ñooro euh, nitu yàlla boobu gur yàlla boobu jàmbaar boobu ñu fekk si woon euh, ñu doon waxtaani aljuma passé di sunu maam Maba Jaxu Ba ci njàmbaar teem ci yittim ju kawee euh, Adja Bessel am na mbégte xam naa nga sànni kàddu ci daara avant ngay ñëw ci carnet voyage mu nekk nii mënuma wax oustaz mi noonu xolam dafa fees ronko ñaa ngay bëgg a tuuru kon Haj Malick ñu jël élément bi tuuti rek ñu defeel ajaa Bessél Baas ñu del siwaat léegi incha allah taala bi nga xamee nag ne xeex nañ xeex boobu ba wàññeeku hmm. ah buur siin woote waat na si biir siin ne képp borom xam-xam na nga ñëw ñu ko waxtaan hmm. ndax ma ñëw na bett nañu jot na fee xeex ak ay nit jot nañ fee rey ay nit te it buggoon bëggoon yónnee dans le saalum ku ko fekk ñooro kooku nag il sera volontaire wane ne man maa ñëwal suma bopp ci suma volonté bopp parce que lu ne xëj na ci ah kooka dal di dem won buur si ne ko yow dafa ñëw sax ci dëkk ba fekk ne buur euh, ma ba dem na tool mu fekk benn njege maal ci kër gi ko ñuy wax ku ba noor ndaw mu nuyoo laaj ko kii mooy kan mu ne man maay ku noor ndaw mu ne ko damay laaj Euh, ba Jaxu mu ne ko def dem ci àll bi waaye bàyyil ma dem wooyi ko kooka dem fekki ko ñëw na ko am nga ay gan gan ba nag ab jedd la war a doon parce que góor la waaye mu ngi takk ay long-long léttu mu ne ko kon waa Siin la boo demee nga dalal ko ñu ngi ñëw ñibbisee ñu wan ko ne ko nag man de dañ maa yónni ci yow te man li ma lay wax balaa ma la ko wax waa waa Saalum yëpp toog mu wax la ko mu dajale ay kàngamam won leen ne leen man ci sama bopp daal buur si eh, si moo ma yónni si ndax nee na maba bi ngay ñëw siin tàgguloo ko dangaa ñëw bett ko xeex ak nit ñi ak sa yegg si rek vraiment aussi dal di song ay nit di leen fetal waroon ngeen ñu laaj li ngeen di dox lan la waaye nag comme def ngeen loolu bu fekkee deret a ngi ci yow boo del see siin fa ngay des noona am benn kàngamam bu jóg nekk ko yow luy wax lii bu dul woon nga doon gone danaa jotee yow te fii laa lay waaye nag comme gone du ma def loolu mu ne nag bu bés ba jotee boo ñëwee loo defoon sama baay boo la naa la ko def ca la jot jëlaat encore euh, dellu siwaat siin waxtaan ak ñoom mais bi nga xam nangu naa ñëw uh-huh. waa siin daje nañ waxtaan ku nekk joxe xalaatam lan la ci mën a def ku nekk wane ne que man bu ñëwee man lii laay def am na ku ko ne bu ñëwee balaa yegg si danaa taw ci kaw seen kaw seen poutre tooy am na ku ko ne man danaa soppeeku ab fett boo xam ne bi diggante jaxaaw ak boo làqoo garab te bu ma bu ma sànnee fett bi dana la jam te bu la jamee nga dee mm-hmm. am na ku ne aussi danaa soppeeku ay yëmb ñu daw ñu naaw dugg ci équipe Maba Diakhou bi fas euh, bakkanu fas yeek ak nit ñi. Uh-huh. ay yëmb ci dugg di leen mat ñuy daan kon. Uh-huh. biñ ñëwee fii somb nag fi la problème bi gën a amee parce que waa somb daje ne nag duñ bàyyi aussi ma Maba jaxu mu aw di yoon wi direct dem jaxaaw uh-huh. ñoom ñuy xeex moom fii ci quartier bala ñuy seen ngay seen. ñuy wax Mbaa Fay fa ñuy xeex moom. xeex bu méttee métti ba am ñu fi jot a dem ñu wëri nag def le tour vers le nord pour dem jaxaw bi ñu demee romb cuucuun nag ba à un kilomètre de cuucuun fa ba Maba Jaxu des avant buur siin yegg si fekk na ba Jaxu daanu na hmm, fekk daanu na dee mu ngi àndoon nag euh, je crois Alburi hmm. Alburi ne Lat Joor du mu yàgg yàgg yàgg yàgg xam nga ne doo falu mukk siin te comme góor gi daal na na ñu dem suñu yoon lañ gedd ñoom itam continuer aw yoon wi dem dans le bol mën a jàll mi ngi noonu am nañu mbégte euh, gis ngeen ajaratu Bessél Baas noonu la ñu demale woon Kajoor jóge fa bàyyi koo fa dem ba Ñooro njabootu euh, Maba Jaxu Ba dégg ngeen kàddu yooyu la waaye dégg ngeen jaarinu euh, Maba Jaxu Ba nga xam ni bari na réew mi ay borom yi xam-xam yoo xam ni woon na leen ñu ñëw foofu bokk na ci sunu maam Mor Anta Sali bokkon ca xaw bi bokkoon na ci yeneen i borom xam-xam yu ne woon ci biir réew mi indi moom daa daan na leen woo ñu ñëw daan atte nga xam ni Mor Anta Sali moom itam nga xam ni xam-xam bi ne ci ci moom daan jàngale fànnay xam-xam yëpp ak yeneen mag yoo xam ni mabba kenn ku ci nekk xëcc na la ci moom euh, ngay atte la wër dëkk boobu daan fa jàngale sharia euh, Adja Besel yaakaar naa bi demee ñooro fekk fa njabootu maam euh, mab joxu ba gën ngaa jaaxle ci wëluyu bu mag boobu le effectivement oustaz Pape bi nga demee Nioro am na lu lu yéeme loo xam ne ni tey jàng nañ ko ci moom waaye nag fi nga xamante ne moom mooy jaxaw bi élément bi ñu ngi ko defee woon rek fi nga xamante ne moom mooy jaxaw tey boo xoolee Maba Diakhou Ba jaar-jaaram bi yëpp bi mu jaar xëy na daxa euh, xëy na mm, Nioro la dëkk fa la juddoo voilà mais tey euh, histoire bi mu def fi nga xamante ne rek moom mooy si euh, jaxaaw mhm. voilà ñi nga xamante ne ay xërëm la ñu yoroon di ko jaamu mhm. mu jël diine l'islam xam nga loolu dafay xaw a jafe fekk fa ay ceddo bëgg leen convertir en lislaam dafa nekkoon jafe-jafe xeex bu ne xeex nañ ko ba xeex bi nga xamante moom la mujjee xeex ak buur bi mooy histoire bi ñu raconté foofu la bakkanam des donc te moom bi muy jógee ñoo xamoon na loolu waaye loolu teewu ko tamit mu daal di fay jógee pour ñëw rek diine lislaam am fa place mu déplacé wu ñëw ba foofu tey boo fa demee tamit euh, foofu lañ ko denc euh, mu nekk bërëb boo xam ne ni nit ñi dañ fay dem di ko ziar mais euh, dañu dañu war a jël bërëb bi oustaz Pape Hann ñu war koo gën a defaraat waaw yee salaat ko parce que nit koo xam ne dafa xeexal diine l'islam taxawu ko fa ak fi mu jaar yépp ba Chine boo fa demee maanaam ñëpp ay ay ay jullit lañu. mu nekk loo xam ne lu am solo la euh, bërëb boobu war nañ ko gën a taxawaaw taxawaay boo xam ne ni euh, nit ñi ñëpp war nañu mën a xam histoire boobu oustaz Pape hmm. moo taxoon rek ñu demaloon leen foofu indil leen ko parce que ñu mel noonu jàmbaare loolu nag euh, war nañu sasune di leen fàttaliku te xam ne diine l'islam rek moom mooy dëgg moom mooy mujj moom mu njëkk mooy suñu borom. mi ngi noonu xol bi dafa tooy tey xol bi dafa yëngu Adja Bessél Baas diine lislaam mi ngi noonu mooy dëgg Adja Bessél nu ngi lay ñaanal yu itam yàlla sàmmal la boppam yàlla aaral la boppam tey jii nag yaakaar naa ku xeraw lu déglu Adja Béchel lig ni euh, am na lu xew waaye moom nii rek la mësamel ci bëgg yàlla ci bëgg Seydina Muhammad waaye euh, bëgg diine moom Adjaratu Béchel Bass gën na yokk nag mooy keroog bi mu demee jàkkaarloog bàyyi Fatima ak Umu Kulsum Roqee ak Zeynbu bàyyu Ibrahima Xaasim soppay Seydil Xaaji Malick yaakaari borom Touba maami Cheikh na Cheikh Saad bu soppay Cheikh al Islam soppay maam bu Kunta limaamu Seexu Cene ba waa jàngoog mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Adja Béchel fa jógee ba léegi bëggoon na ko waaye cofeelam ci yàlla ah gën naa dolli ko mbokk yi daañu ñëw léegi ci alxaaji sunu alxaaji Thierno Ndiaye waaye dégg nga xabrom ba xam naa maam Abay Kebe menn mm. ah, sa xarit Ousa Assane mm. moom xam nga ma ba joxu ba mi maamam direct la Ablaye nu ngi lay nuyu nu ngi lay ziar Alassane ak Séni lay Moxtaar nuyu waa ah, Cambre yëpp nuyu waa Yoof yal na yàlla yokk leen dëgëral ah, Ousa Assane xam naa xam nga man dama bëgg maye mm-hmm. dama bëgg di joxe mm-hmm. ah moo tax président war na ma defal budget <laughs> budget Assane loolu war nga ci kaas. ndax am nga ay xarit yu ne foofu. dama war a am budget joxe war nañ ma jox budget. budget boo xam ni. dañuy ko dañ ma koy jox. ku ñëw rek nga jox ko. ay milliards lay doon nag. macha allah ku joxe. budget joxe waaw ah. yaa ngi may joxe seen àdduna. waaw budget joxe. dañ koy jox ma ñaar fukki oto. <laughs> parce que xam naa ñu mën a. te bëgg a joxe te yorul. yaruñu sunu zaari <laughs> mat leen ci ginnaaw jox leen ay kees ànd ak ñoom waaw paak yat la bokk ci ñi may yóbbaale ci muy joxe ca bokk mi ngi noonu euh, ñaan yàlla defar sunu bi àddina yàlla defar sunu mbiri alaxira kon mbokk yi mi ngi noonu euh,